ay nitam damay gis dañuy yuux rek ndeysaan nan Macky Sall non vraiment euh, début bi lan la leen wax di nga xam ni l' état est fort di nga xam ni l' état est fort dañuy nappaatee sénégalais naan reste à la loi l' état est fort nga xam ni l' état comme soxla na la jëli ma ne ko da ngeen di duul da ngeen di kàcc bu ma leen joxoon loxo sax doole moo yóbbu fu ma taxaw dafa dëgër kàcc woo kongu man man bandi laa bandi bandi cerveau laa balaa maa jóg damay préparer lépp du ma Assane Diouf te di ngeen xam ne du ma Assane Diouf te di ngeen xam ne du ma Ousmane Tounkara maa leen di jommal man picc bu ndaw mii man melentaan mii maay màtt seen taat yi te doole ma mënal tus di wax lu ma neex lu ma saf te doole ma mënal ñàddërëm bàyyi Macky Sall sax mënulu ma ko te la ma leen waxaloon lool dëgg ja <laughs> man maa kaaki boo waa ji ne woon na dañu nañu yónni commando xar naa commando ba commando ba ba mu ñëwee lem naa leen noq ci douze ba xëcc foos ba xëcc sas ba euh, mu dem ca foos ba Macky Sall menacé am ay nitam yeeg yëpp ñëpp laa ñuus toog seen kaw même grand bi ne dama non boy je te le ma bii moom dañ lay jëli. maa ngi nii ba léegi toog relax di enjoy di leen ñuus ngeen di saw di joy te mënu leen ma foog donc loolu moom dama ne ba deux mille vingt se c'est mu Macky Sall munu ma yëngal ba deux mille vingt quatre bàyyu Macky Sall munu ma teree nalaw Sénégal wërngal këpp. kenn amu fa pexe bu mu mën a jëlee fii ne def may yóbbu kenn nii doole nii xam-xam nii rien du amu leen ko moo tax boo leen fekkee ci seen forum yi ñëw APR ña ngay jooy non waa ji jëlee ko leen ko ba léegi non waa ji moom jàpp guñ ko ba léegi quoi non mais fenkat yu yeneen moo gis benn fenkat bu mun a fen moom mooy moom mooy moo nekk ci seen kii rek mooy jaxate yàqate <laughs> na non c'est que kii boo gisee jëleeguñ ko ministre des affaires étrangères la quoi mooy nalaw ko ma ne ko ministre des affaires étrangères sax saaga naa fi ndayam <laughs> sa Aïssata Tall Sall saaga naa fi ndayam nga naan ma ay ministre des affaires étrangères ministre des affaires étrangères boo mënoon jël jël siwuma bu yàgg seen kii ak ki nekk fii rek saaga naa ndayam ki nekk fii seen avocat seen seen seen nu mu tuddati seen seen euh, seen ambassadrice bi Viviane Mbampasi sax saaga naa ndeyam te mi ngi nii jege ma ba génne foofu ay document kalaate ko fii defal leen rëbb dëmm bu dee Viviane Mbampasi mi ma jege fi laa saaga ndeyam bàyyiwuma Macky sàll wala wala wala Aïssata Tall Sall ñoom ñëpp waaye seen waaye damay waaye damay ngeen naan ma xool leen ma bu baax man da man maay tunkara man xool leen ma bu baax yéen man lu ma sañ a lu ma ñimee def ak fu may infiltre ak lu may dugg Ousmane Sonko amagul soldaar bu mel ni man man damay kamikaze mbedd mee ma yar damay kamikaze di dugg fenn di explosé wu di naaw di rajaxe duma Ousmane Tunkara duma duma Assane Diouf maay ku leen di jommal ci àdduna lu mu laaj rek ma teg ko ci maa gën a féroce ci bépp élément wu Ousmane Sonko maa ci gën a féroce maa ci gën a féroce maa ci gën a capable ëpp ci fit dama ne amul senegal lu ma fi mën a jëlee man fi ma toog nii njaaxlaa fi def di fi dund nekk sama jàmm xam nga lan moo fi am peace ñëw ay Mollah jàpp ci ngir yàlla sarax ngir yàlla loolu moom doo koy dégg all time koo gaa yi daw ñëw mbokk yee ñëw sarax ngir yàlla ba léegi rek léegi léegi rek jot naa fi ay sarax ngir yàlla sarax ngir yàlla rek man <laughs> loolu moo lay sauvé mooraa ah sarax ngir yàlla mais kuy dof-doflu di ma tëkku boo mu tëkkoo ma saaga sa ndey comme nu may def Macky Sall saaga sa ndey sa juróom-ñaari maam te doo munal tus fii laay toog du ko enjoy ba ñu changé Ousmane Sonko nag ma ñëw cakas bin bin cakas cakas bin bin xool bu boobaa di nga xam ne mënoo ci man dara nay leer donc gars yi stay focus rek stay focus ñu continuer combat bi c'est tout waaw léegi-léegi rek waa xalifis yi ñu waa Mollah yow li nga wax nangam nangam ma leen mais loolu la dañoo daan jàpp Xalifa Sall ngeen menacé ne buñ ko jàppee ngeen def taatu nen ni leen seen yaay juree génne seen ndarpaay ni boo leen wooyee wax def euh, génn def seen communiqué ne bu ñu jàppee Khalifa Sall yéen xalifiste yi ngeen génn seen ndarpaañ yi def ni leen seen yaay juree def marche man aw ma droit raxas samay bët ba mu weex tàll xulli dund guinze ba def tat wala boog yëngal samay yaxu ndigg yëngal sama yax yi sama deret bi beesaat aw ma ci droit yéen a ko wax yéen a yéen a fi taxawoon di menacer ma ne leen Sonko du Khalifa Sall Sonko du Karim Wade bañ fi bëggee jàpp Khalifa Sall yéen a génn ne buñ ko laalee di ngeen def taatu neen ni seen ndeyi juree ñu jàpp ko dóor ko ci kaso yi ay at génnew leen seen ndarpaay ni ah boo leen tasee sama yaakaar du ma ñëw ne leen tas gën sama yaakaar bëggoon naa gis ay ndarpaay ni xees yu ñuul yu chocolat yu orange yu bëri karaw yu ñu wat yu ñu étifor yu ñu zulu yéen a ko wax donc loolu loolu laa wax gel boobu woo ma xalifiste boobu ma ne ko hey non yow amoo respect a jigéen ma ne ko yéene woon da ngeen may jox seen ndarpaan yi da ngeen di jox Sénégal seen ndarpaan yi ma raxas samay bët ba mu rafet parce que bëtay gis keroog damaa yeewu fajar raxas ko ba mu set dem ville taxawaalu foofu parce que ville ngeen waxoon da ngeen di marche ba dem rëbës donc foofu laa taxaw di leen xaar ci boppu koñ ba toog naa fa huit heures ba vingt heures gisuma ku may romb gisuma ndarpaayin gisuma bu xees gisuma bu ñuul kuk gisuma bu ñuul gisuma bu orange gisuma bu marron gisuma bu ñëwaat <coughs> sama yaakaar tas mooy yolleeku dox ndànk jël sama kalandoo ñibbi am naa ci droit ñun nag duñu xeexee doonu ñun euh, les patriotes de la république duñu xeexee noonu génnewuñ ndarpaayin génnewuñu sullu ay xeer lañ yor ay cocktail molotov lañ yor ay bazoka lañ yor ay bomb lañ yor ay almet lañ yor ay brique lañ yor ay pëna lañ yor dañuy taal di boyal di rajaxe di toj di saccagé di boyal di taal loolu ñun loolu la ñuy liggéey ay ndaar fayen génnewuñu sullu boyal almet taal vum rajaxe toj récupéré dox ñun loolu lañuy liggéey <laughs> bu feras wi donc ñun ay révolutionnaire lañ ñun du ñu ay ñuy ñuy génne seen i dox di mars ak yooyu déedéet déedéet déedéet na boy na tàkk na tàkk jëppeet ñun yooyu la na tàkk na tàkk na tàkk ay ca na poy na poy rajaxe rajaxe ay na moq na moq rumbax rumbax rumbax nokkos bum bum basoka bomb ay ca ay ca ay ca cocktail molotov taxarnaase largué bum ñun yooyu lañu xam ñun xeexkat lañ donc patriote yi moom ñun loolu lañu xam defuñu joxuñu kenn suñu taat yi joxuñu kenn suñu julli yi joxuñu kenn suñu yaram nga ñuy xool ak a yëndoo ko yooyu ñuy dox di lapar lapar defuñu ko duñ ko def kon nag soyez prêts les gars ah soyez prêts samedi lépp samdi la samedi incha allah révélation explosive dañ leen wax ci def affaire yëpp affaire jo aji saar yeeg nangam nangam plan yeeg yooyu ñu préparé yooyu ba pare naa leen jox benn surprise bu day waar gis naa leen ñu koy ñi anticiper gis naa non man maay bandi non carte gi may joué ah deux mille vingt quatre rek laa mun a taxaw ci défilé bi incha allah défilé bi Ousmane Sonko bu paree mane ko Ousmane dama bugg nga may ma nag fii nag laa jëlee temps wax ak sénégalais yi li ma liggéey ci révolution bi li tax tey nga toog fii tey bu boobaa dina ma ko may mu wax leen yëfu bandi yi may def infiltrage yi may def infiltration yi may def espionnage yi may def li may récupérer <laughs> non duma di bërki démb de aji saar nalawul bërki démb aji saar nalawul <laughs> maa ko teree nalaw billaahi wallahi wa taala barke alquran kon yàlla bu Sonko doon président maa ko teree nalaw bërki démb bërki démb laa du <laughs> laa ne sar bu bum aji saar di waa kii kan la rek dem avisé mati droit mati droit tam dugg woote gars yi di woote jaxasoo tëtëtëtëtë waa aji mi ngi fii daa leen ko tagal bu mu ñëwee leen ko tagal daa ko sama gars yi ndagu bii kan la fekk man infiltré naa leen ba toog numéro bii kan la am ko ne non Mollah Morgun Mollah Morgun kooku nag eh non yow dangaa nangam rek yow bu leen ma boole ci lii ne war a mën a képp loolu lépp récupéré <laughs> bagage yaa ngay yow de akama bon akama féroce moo tax ay gaayam yi bërki démb seetlu leen dara waa APR yëpp génn nañ naan l'homme qui a appelé ici qui a nangam Mollah Morgun xamuñu ci dara xoolal xamuñu dara fekkewuñu dara yëguñu dara dañuy anticiper te man bandi laa <laughs> dama leen infiltrer récupérer tëll génn loolu samedi la gis naa leen nag ñu def ay ay publication ñoom ñëpp nag te ñoo tiit nag non dañoo tiit maa bon coy maa bon man de Sonko bu ma amuloon xaw ma lu muy wax tey Sonko bu xaw ma lu muy wax quoi maa yées Adji <laughs> Sarr Adji Sarr jël naa la de kii kan la la ñu ne Mollah Morgun Mollah Morgun Mollah <laughs> rek ñu ne la eh yow nangam rek ah yow bu dama boole ci la yow daw Adji Sarr tiit woote na Sénégal wër nga këpp la Adji Sarr woote heureusement rek audio yooyu maa ngi moom fii Adji Sarr woote na fii téléphone bi wee wee wee moo tax si ca lendemain démb ñoom ñëpp génn man seetlu leen dara ñoom ñëpp man lañ publier. ah y' un groupe de quatre personnes y avait Mollah Morgun dafa doon infiltré am na lu mu kii def leen attention piip piip man fo ma jaar rek da ngay dégg piip piip attention attention danger danger attention attention danger danger. fekk infiltre naa leen ba jël li ma war a jël paqueté Adji Sarr yow doo nelaw samedi doo nelaw dimanche doo nelaw lundi. gis nga démb nu ma la tëbee pourtant mu da ngeen doon xaar ma ñëw wax ci loolu gis nga nu ma tëbee bandi laa nag je suis stratège la bandi mbedd moo ma ko formé noonu loolu laa mos a doon technicité maa ngi yow Adji Sarr maa la ko wax doo nelaw vendredi samedi doo nelaw dimanche doo nelaw lundi psychologiquement lañ lay abattre psychologiquement di nga xamal ñi nga amal affaire donc gars yi samedi ah soyez ready-made briquet allumette pneu essence taal briquet allumette pneu essence taal les gars eh. stay focus mate briquet allumette ana soldat yi briquet allumette pneu essence taal briquet allumette pneu loolu moom mooy chant de la guerre one love à samedi incha allah peace and amount yaa one love yaa jëw